këram presse sénégalaise sànq Omar mu ngi wax naan président Macky Sall defoon na en 2012 mais quand même en 2012 président au mois d'avril après bi mu jotee pouvoir bi dem na France wax ci perron de l'Élysée dina réduire son mandat jëlee ko de cinq de jëlee ko de sept yóbbu ko cinq ans donc primeur bi presse étrangère la ko jox kon à la place du président Macky Sall le président Bassirou Diomaye Faye au moins def na effort bi muy njëkk a wax après bi mu jotee nguur quand mu wax ak presse sénégalaise et exclusivement avec la presse sénégalaise ñu rafetlu ko parce que dem na fi quand même Paris si diggante bi mais joxul primeur ñi nga xam ne ñoo nekk à l'international à la place de beaucoup d'autres bu ñu bu doon ñoom amaana dinañu wax ci visite boobu avec la presse internationale donc loolu dañuy jàpp ne c'est quelque chose de positif alors mu waxaat ci biir euh, kàddoom damay déglu opposition bi j'écoute l'opposition loolu c'est très important quand même ndax à sa place parce que bëgguñu def comparaison mais quand même mënul ñàkk pour l'histoire à sa place on avait un président euh, Macky Sall qui à Kaffrine en 2014 ou 2015 mu ne woon je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ah le président Bassirou au moins moom waxul ne il va réduire l'opposition à sa plus simple expression mais je, mais, mais je vous écoute kon ça veut dire que prend en compte l'opposition et c'est parce que loolu moo ñuy may opposants yi lu ñu mënti wax ak taxawaay bu ñu mën a am du ñu dem di leen di contourner à travers des batailles judiciaires wala muy am ay affrontement yuy am ci terrain politique bi ba violence di ci tukkee kon loolu aussi dañ koy rafetlu euh, par rapport à la baisse des prix nee na duñ ci yem loolu ndorteel la mais bëgg na ñu koy gën a euh, wéyal di gën a wàññi njëg yi ah loolu neex na si njaayeen yeeg <laughs> muy gën bi sax waaw ndax ñun moom dund wàññeeku bokk yitteel nañu ah. euh, euh, farlu dañ ciy farlu saa su nekk et aussi mu ñëwaat ci loyauté bu mu manifester envers le président du PASTEF Ousmane Sonko loolu aussi valeur yu baax la ndax dañu yàgg wax ni fii suñu politique bi dafa salte affaire wor moo ci am affaire ingratitude et bu ñu gisee nag njiit bu taxaw di indi valeur yi nga xam ne mooy suñu valeur societal ndax sénégalais dafa bëgg ku am ngor ku am kóllëre léegi nag bu ñu président wanee ne moom am na kóllëre ci ki mu àndal depuis fukki at te bu sañoon mu doon jiiti réew loolu lu waaye loyauté la te boo seetee États-Unis première démocratie au monde li fa mën a éliminer homme politique ci ay valeur rek lay doon ñoom dañu fonk valeur États-Unis c'est à partir des valeurs qu'il élise et bu ñu la nawul ci valeur munoo am chance doon le président des États-Unis te c'est la première démocratie au monde donc suñu demee ba Sénégal ñuy am loolu pour man président bi euh, loolu lu positif la pour mu exprimer ñu ko wax na it ci renégociation des accords ba jox exemple Mali suñu amaatee loolu mën a gagner marge ci li nga xam ne jot nañ ko signé ci ay accords ci suñuy euh, biens yi wala sax ci suñuy ressources naturelles et minière ah loolu tamit wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu parce que qui peut le plus peut le moins bu fekkee ne dañuy war a am lu ñuy yokk ci renégociation euh, li nga xam ne mooy suñuy accord loolu c'est positif xanaa kay di ñaan mu bañ a doon lu ñuy gar euh, indil jafe-jafe bañ ci indi ay xaalis yu ñuy fay et pour couronner le tout le tempérament quand même du président bassiru Diomaye Faye dafa dafa dafa apaisé sa manière sa tonalité son discours ni mu waxee aussi apaisé na parce que mënoon na am un discours va t guerre ndax gisoon nga euh, sorties médiatiques yi nga xam ne son premier ministre defoon nañ ko defoon na ko te sorti médiatique yooyu euh, dañoo virulentoon envers l'opposition envers la presse grand Omar mu ngi koy cité tantôt et beaucoup de couches yoo xamante ne ñu ngi ci société bi donc moom dafa ñëw wàññi ardeur mais aussi tempérer li ñu naan wàccee na température bi daal et loolu c'est quelque chose boo xamante ne lu baax la léegi nag euh, li ñuy li ñuy am comme point négatif par rapport à sa face à mooy li nga xamante ne crise à l'Assemblée président dafa wax quand mel ni ku jox dëgg premier ministre am et loolu aussi républicain yu bëri da leen a parce que assemblée quand même pouvoir la d'égale dignité den lu ñu wax Sénégal trois pouvoirs moo fi am exécutif législatif judiciaire donc un autre pouvoir mënuñ ko néewal devant euh, pouvoir exécutif parce que député yi ñoom it souveraineté la ñu am ndax c'est le peuple moo leen fal ils sont élus aussi suffrage universel donc ñooñu bu ñu leen néewal li nga xam ne euh, mooy seen pouvoir lu jëm ci caisse noire cette déclaration buy wane ne fekk fi dara ci fonds politique aussi euh, munoon na ñàkk parce que ñëpp ñi xam administration xam finance dàq nañ loolu ne mënul wax ne fekku fi dara parce que fekk na fi dara ndax euh, trois mois yi jàll mënu fee jël li ci amoon parce que du moom moo ko liggéey prédécesseur am moo ko liggéey kon liñ ci war a mën a fayeeku kooku moom moo ko war a fayeeku léegi nag mu indiwaatal ñu ci benn épisode buñ fi dundoon ba mu indi woon euh, jafe-jafe ci climat politique bi mooy nii wii nii non moom it aussi indiwaatal nañu cas bi ñu amoon avec le président Macky Sall du ma wax ci sama mandat oui nii wii nii noo moom aussi nee na du waxati ci man du wax ci mandaam nii wii nii noo kon ku koy xaar dina yàgg loolu dina ñu installé waat ci benn débat politique boo xam ne day stérile ñu xam ndax il sera candidat à sa propre succession ou bien dafay jël mbir yi légué ko wala délégué ko ki nga xam ne mooy premier ministre wala keneen on ne sait on ne sait pas loolu aussi euh, pour man mënoon nañ ko bañ a revivraat comme épisode parce que lim ñu juraloon mooy un climat tendu ak euh, manque de confiance entre pouvoir et opposition entre acteur politiques loolu on pouvait nous épargner de cela Sénégal démocratie yam pour man majeur na de sorte que ku fi toog war nga am fitu ne man bëggaat naa un second mandat wala nga jàpp ne soo paree benn mandat dangay ngay dem euh, lu jëm ci conseil supérieur de la magistrature y a un président de la république nee na moom deful ci fixation c'est pas une obsession mu nekk ci wala mu bañ ci nekk mais moom jot na rapport bi nga xam ne def nañ ko ci assise de la justice il y a dix jours liiragul rapport bi moo ko wax dans son interview mais mu ngi déglu UMS ci li ñu ko ne euh, moom bu mu génn ci conseil supérieur de la magistrature. invité ñu ñun tam ñu dégluwaat. ñu dégluwaat waa UMS. waa au même moment nee na depuis un mois mook premier ministre am ñu ngi liggéey ci chamboulement au sein de la magistrature moo ko wala. on ñu ñëpp ko ñu ñëpp ko dégg waa loolu contradiction la yow amoo ci obsession dem dangay dem wala doo toog mais yaa ngi liggéey ci chamboulement. <laughs> loolu loolooy solo conseil supérieur de la magistrature ndax saa yu amee ay affectation la ci lañ ciy tukkee. te li tax sotteekul ba léegi de <laughs> choix. donc nee na ñu ngi ciy liggéey depuis un mois. Mm. donc pour man le président il reste et il compte rester dans le conseil supérieur de la magistrature pour man amatul flou man ci li ma am comme dégg-dégg. léegi lu jëm ci finance publique. président nee na ñoom fekkuñ fi dara les signaux sont au rouge mais FMI moo ne Sénégal dafa nekk ci liquidité. et amuñu problème mu finance sur liquidité la ñu am léegi entre le FMI et le président à quelle parole se fier en tant que sénégalais ñun loolu aussi dafay doon loo xamante ne. Euh, daf daf ñu ko war a leeral. et lu jëm ci présence force militaire française yi doonoon quand même un discours de campagne et de propagande du parti Pastef. laaju Aliou Sow bi laaju Aliou Sow bi le président aussi. nii oui nii non donc y a un clair obscur ci yenn sujet yoo xamante ne bëggoon nañ quand même des réponses nette et concise euh, de la part du président. balaa ma ñëw ci Omar euh, ci Aliou euh, pluto ci Omar nga Omar Sow nga baal ma dabaax def nañ tour de dégg nga yenn ci peut-être mën nañ ko yenn ci mbir yu ñu jukki par rapport ak face à face boobu est-ce que aujourd'hui d'accord nga ci li ñu fi wax. waaw heureusement que Mame Fatou a pris la parole et à travers ni mu waxee au moins on sent que. il y avait en tout cas objectivité amoon na tuuti. et et je pense que c'est le rôle des journalistes parce que comme ni ngeen ko waxee ni ngeen di euh, laaje niveau bi homme politique di ko yéegal yéen aussi vous avez l'obligation di yéegal niveau bi voilà ñëpp war a yéegal niveau bi Sénégal donc on a parlé de beaucoup de choses euh, euh, si je prends le cas de madame Mimi Touré qui est pour moi mu nekk benn exemple pour jigéen ñuy def politique Sénégal dama ko gëm parce que c'est une femme de conviction et et et et je répète c'est pas parce que mus na liggéey ak APR que dañ koy sànni fale ku bon la si à moment donné de l'histoire politique du Sénégal jàpp na ne projet PASTEF mooy projet buy jëmal Sénégal te moom daf cee war a jàpp en tant que doyen que dama war a bunge ces jeunes là pour ñu jubal Sénégal kooku dañ koy accueillir les bras ouverts parce que bu dul dara sax am na expérience bu ñu mën a jàng ci moom. problème mu ñenn ñi mooy dafa dafa dafa bokk ci bilan wu régime bi fi génn. waaw mhm. partiellement. am na li ñu ci bokk mais encore une fois c' est exemple simple bi ma ko. waa waa soo ma. non pas partiellement. waa waa léegi. partiellement li ngay taggee nii Mimi en deux mille vingt ou deux mille vingt et un yaa ngi doon wax la même chose. non xam nga. j' espère man tàgguma nit. ci euh, waa xam nga gis nga nit ay jëfam ay si ay jëfam lay mën a basé wu moi duma ma juge nit teg ko fa ne kii dafa bon ad vinam aeternam est mu def ak Macky ak at bi mu def ak dama ne man dama dama man man personnellement j'admire les gens yu yuy assumer seen ay convictions Mimi ñàkkul fayda am assumer ay convictions moo tax mu jóge APR aujourd'hui comment elle accomp elle assume ses convictions. dafa jàpp ne dafa non non respecté ñu waay mais vous laissez vous ma laissez continuer Mimi Touré.